ak kon incha allah ñu ngi war a wëy ci suuratu luqmaan ci aaya ñaar fukk bi ci suñu borom di waxe ne alam taraw an allaha saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard suuratu luqmaan aaya ñaar fukk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قل إن شاء الله نبيعك شيخ عثمان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور بارك الله فيك سني بروم سبحانه وتعالى مني ألم تروا moo ndax yéen gisu leen an allaha saxara lakum ne yàlla day tàggat na ñel leen maa fi samawati wa maa fi l ard lépp lu nekk ci asamaan ya ak lépp lu nekk ci suuf wa asbaxa aleykum ca it jotal na ci yéen niamahu lii di ay xiiwalam zahiratan wa batina mu nekk lu feeñ ak lu nëbbu wa min annaasi man yujaadilu fi llah doonte ne am na ci nit ñi ñuy dàgg sante ci yàlla bi xayri ilmin ci lu àndul ak benn xam-xam wala huda wala benn njub wala kitaabi munir wala ab téere boo xam ne nii buy koy leeralal la wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala allah suñ leen waxee kaay leen topp li yàlla wàccee qaalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana ñu ne déet ñun dañuy topp la nga xam ne fekkoon nañ ca suñuy bàyyi awalaw kaana sheytaan ah doonte ne sax sheytaane moom yad'uuhum ila azabi sair mi ngi doon woo seen bàyya jëmaleen ci mbugalum sair wa man yuslim wajhahu ila allah koo xam ne ji jubal na kanamam nga jëme ko ca yàlla day wa huwa muhsin fekk ma ngi ca boole di rafetal faqad istamsaka kooku day moy na bil urwatil wusqa ca njàpp ga nga xam ne mooy jàpp gu dëgër ga wa ila allahi al aqibatu al umur ca ci yàlla it la mujj lépp di dellu wa man kafara amaana ku weddi fala yaxzunuka kufru bu mu la tiis weddeem googee ilayna marji'uhum ñoom ñëpp ci ñun la ñuy dellu fa nunabbi'uhum bima amilu ñu xabaare leen lañ nekkoon di ko jëf inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla day moo ka xam la nekk ci biir dënn ya mi ngi noonu bokk julit suñu boroom daa bëgg ñu jaamu ko waaye ñu wéetal ko lool it bëggul ñu koy teg ci ndono man fekkoon naa suma bay julit laa rek julit laa mu jeex déedéet suñ boroom daa bëgg ñu teg ko ci yaqiin moo tax ñu jàng ko démb li qawmi yuqinuun mooy ñu am preuve yu leer ni li ñu gëm dafa am fu ñu ko teg moo tax suñu boroom mu ne xanaa xoolu leen ne moo tàggat ñeel leen li nekk ci kaw asamaan yi ca mbokk loolu nekk ci kaw asamaan yi bokk na lañ cay gis mooy lu mel ne un weer wi ñu tiim yàlla ñu ko tàggatal ngiree ñu mën cee xam suñuy dat yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal xaj nit ñi mën ci joxante ay rendez-vous nit ci nit ñi mën ci xam kañ la ñuy àcc loolu tax koor gaa ngi nii ñu woorandoo ko te teguñu ko ci ay calendrier jant bi doonte ne weer bi dana liggéey leneen lu gën a am solo ñeen ñu lool ci ku xam équilibre bi nga xam ne moom lay def ci océan yi ak yu bëree bëri nga xam ne tey ni yàlla tëddale sunnay àdduna bu fi weer wi jóguwoon rek àdduna yépp yàqu nga jóge fa dem ci jant bi jant bi it ëpp ko njëriñ te na nga xamee ni noonu lay tàngale sunu planète bi ci position bi ko yàlla teg bu ko gënoon a kawee planète bi day glacé bu ko gënoon a suufee suuf yépp takk yàlla teg ko ci benn orbite boo xam ne foofu dong la baaxee mu ñuy ñoralal suñu mbay dañu yónnee ak leer dañu yónnee tàngaay nga dem ci biddiw yi ci kaw sunu borom mu ne li taxtadoo biha fi zulumaatil ard wal fi zulumaatil bahri wal wal bar mooy biddiw yooyee da ngay gis sunu maam yi moom lañ doon gindee ko bu ñu nekkee biir géej wala ci àll yu lëndëm nga xam ne ay garab rek la wër boo téenee xool biddiw yi xam ko mool la fii nga war a jaar xale yi nekk suñu primaire bi sax bokk na lu ñu leen di jàngal on peut s'orienter le jour à l'aide du soleil et la nuit à l'aide de la lune ou bien de l'étoile polaire mooy mën ngaa gindee ko bëccëg ci jant bi guddi nga gindee ko weer bi wala li ñuy tuddee étoile mu ngi noonu bi nekk ci côté càmmooñ almuhim mbokk yàlla ñu tàggatal loolu nga ñëw ci biir suuf li fi nekk yépp yàlla ñu ko tàggatal tey doomu aadama loo gis ci kaw suuf yaa ko moom yaa tax yàlla def ko fi looloo tax nga gis doomu aadama ba demoon léegi Inde gis kenn ko am gittu ñey gittu ñey laa wax de bu ngoon jotee ñuy jiital ñey bi ba ci garab gañ koy tag jël chaîne yi yeewu ba suba ñu yeew yi dem yóbbu fa leen neex doomu aadama gis nañ ci ay pexeem day jël ay gaynde denc leen ila axiri yàlla tàggat ko tàggat lu nekk loo fi gis rek muy ndox yaag ngelaw yaag montagne yaag lépp yow yàlla def na ko ngir moom borom bi nag mun a jootal samay xéewal lool ay atam ma la nga xam ne mooy ay xéewalam ci yéen mu am ci yuy feeñ mu am ci yuy feeñul ca loolu sa bopp ngay commencé doomu aadama buñ la daloo xam yooyu xéewal nga am man nga wax naa waaw yàlla day may na ma ay bët ay nopp ay tànk yooyu mooy li feeñ waaye mbokk sa biir cerveau bi la ci nekk ci ay milliards de cellules yee di toppatoo lu bët war a gis yee di toppatoo lu nit lu nopp war a dégg yee di toppatoo loo xam ne nii dafa jëm ci li ngay xeñtu ila axiri kenn xamul noo toll sa biir bi li ci nekk ci ay matériels yi ci yàlla subhanahu wa taala def ca la nga xam ne nii mooy mbaq yaag rein yaag xol yaag poumon yaag lu kenn xamul loolee kenn xamul nu mu nu mu bari loolu mooy sa jëmm ji rek gannaaw ba nag jaww ji la wër waatal ne li ngay gisul moo ëpp li ngay gis moo tax borom bi ne fala uqsimu bi ma tubsiruun wa ma la tubsiruun maa ngi waat ci li ngeen di gis ak li ngeen dul gis ca loolu lépp yàlla mu ne maa ko def ngir yéen donte ne doomu aadama yu ci bëri du ko du ko bàyyi xel yàlla yàlla dolli yërëm sunu mbokk bi El Hadj Fadior Gueye bokk na lu mu daan wax mooy nit buñ ne ko woon kaay dañ laa bëgg a yóbbu ci benn île léegi nag yaay xool lépp loo war a soxloo ci île bi wax ko loo waxul boo demee doo ko fa fekk nee na bu yégg di dee ñu ne ko waaw lu tax loolu mu ne danaan nañ ko fa defalal fu muy tëdd naam lekk gi naam naan gi naam wax la mu soxla yépp waaye fàtte wax ngelaw li muy noyyi waa gars yi bu demee île bi fekk fa ngelaw oxygène ni muy def trois minutes après mu dee gis ngeen donte ne doomu aadama yéeguñu sa xiil boobu waaye ma ko xoolal bi nga duggee jàkka jeeg léegi ñaata centaine de litres d'oxygène la la yàlla wërsëgal nga dugal ko say poumon yi gis ngeen loolu kon def naa ko mu zahiran wa batina lii lépp kenn def ko ku dul yàlla teewul nag am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi naan yàlla ak sant yàlla ak keneen ci loo xam ne teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci njub teguñu ko ci benn téere jërëjëf diw bu dul woon ak mooma moo def nii moo def nii ci loo xam ne lan mooy preuve bi preuve bi mooy jort naa foog na li yaxrusuun la seen borom di wax yazunnuun ak seen njort mi ngi noonu suñ leen waxee kaay leen yàlla day wàccee na alquranul karim kaay leen ñu topp ko te mënoo koo topp ca gëmoo ko kaay leen gëm alquran topp ndigal alquran te mbokk alquran kut la ni réew mu mu mën a nekk ci àdduna bi amee kut de la route naka noonu it alquran mooy kut de l'islam ku bëgg dund lislaam fokk nga xam lan mooy alquran kaay leen topp li yàlla wàcce ñu ne déet ñun li ñu fekkoon suñu bàyyi doy nañu sëkk li ñu fekkoon suñu bàyyi doy nañu sëkk ca mbokk loolu doomu aadama da koy wax toujours ci wàllu diine mais du ko nangu mukk ci wàllu àdduna tey jii bëri nañu nekk fii boo waxee ñu ne waaw ñun suñu bàyyi li ñu leen fekkoon xale yi fii di diine ñu bees yi ñu ëpp ci ñoom seeni bàyyi ci néegu ñax lañ dëkkoon buñ man bëgg di tukki fas lañu war wala mbaam tey yow yaa ngi tabax sa étage bu na boy gaare sa kat kat ba pare naan li fi bàyyi bàyyi woon te nga yem ca la fi bàyyi bàyyi woon rek yem ci néegu ñax yaa ngi lalu tagar ya su ko defee loolu kon ci diine lañ ko nangu waaye nanguwuñ ko ci àdduna ni nga demee ba am xel mu sa bàyyi amul am moyen bu sa bàyyi amul ba àdduna nga soppi ko ngal la waay it boo amee xam-xam boo xam ne xam-xam bu jóge ci yàlla la sa xel lu mu lay war a jox mooy ah lii de saa bàyyi fekkewu ko waaye lii ma fekke nii mu leer sama bopp bu ko saa bàyyi fekkewoon dana ci dugg kon nag man danaa ci dugg ba pare da ñaan yàlla jéggal saa bàyyi gis ngeen bu dee na bàyyi ba dagan na jéggalul su ko defee loolul mbokk la jullit war a def borom bi nag mu ne yéeféer yooyu moom la ëpp ci ñoom seen bàyyi seytaane moo leen doon woo jëme leen ci sair ca mbokk lu way di jaamu ci kaw suuf seytaane moo ko digle ñiy jaamu nag zayyana lahum seytaan seytaan leen ko taaral ñiy jaamu guñ ya xambee seytaan leen ko taaral ñiy jaamu yonent yi wala malaaka yi seytaane moo leen ko taaral borom bi subhanahu wa taala daal di bàyyi loolu nee na képp koo xam ne da ngaa jël sa kanam jébbal ko yàlla ca mbokk julit waykat ba nee na jébbalu leen jébbaloo wóor wax du dëggu la jébbalu leen jébbaloo wóor problème bi rek mooy ci kan la ñuy jébbalu foofu rek la problème bi nekk waaye jébbalu leen jébbaloo wóor ku jébbaluwul safara nga jëm waaye nag ci kan la ñuy jébbalu suñu borom mu ne man yuslimu wajhahu ila allah da ngay jébbalu jëm ci yàlla mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne gannaaw ba mu dogoo jaar ci yoonu yàlla mu nekk nag muhsin mooy la muy def lépp yàlla kese tax mu koy def ndax yëg ne na yàlla mi ngi koy seetaan waaye nekk muhsin rafetal ci jaami yàlla yi sunu borom nee na ko mel nii day mooy ki ngoy mooy ki jafandu dafa am lu ñu tuddee jàpp mooy lii micro bi jàpp naa ko su ma ko bàyyi du ma daanu mais boo demoon ba ci plafond bi di waaj a daanu ngoy ci benn branche wala benn poteau boo koy bàyyi di daanu moo tax suñu borom mu ne kooku ngoy na ci jàpp ga nga xam ne mooy jàpp gu dëgër ga gu dul dagg mukk comme na ko yàlla waxee ci gannaaw ayatul kursi lan fi samalaha njàpp goo xam ne boo ci téye du dog ba tàbbali biir ajjana te mooy njàpp tawxid sax ci alquran ak sunna waaye malheureusement mbokk julit xoolal li xew suñu réew da ngay gis ay junni nit daje buñ dajee tëgg waa wala buñ tëggul it wax wax woy ba seen yaram tàng ñu ne jafandu leen ci kan jafandu leen ci diw jafandu leen ci diw jafandu leen ci diw jafandu naa ci diw ba seen yaram tàng moo taxit am pecc lañ koy booleeg yu kenn xamul ñu ngi noonu mbokk jullit du jafandu ku dul ci yàlla jalla wa ala ab jullit li muy wax mooy ufawwidu amri ila allah sa mbir yépp yàlla nga koy delloo yàlla moomu nga xam ni amul lenn lu ko të ci kaw asamaan yi ak ci kaw suuf ndax nee na mbir yépp ci moom kese lay dellu jalla wa ala keneen koo mën a yaakaar di ngoy ci moom yoralu la lu toll ne zarr amma lay sa jàmm lay sa mucc lay sa xéewal ci loxo kenn dong la nekk muy suñu borom jalla wa ala moo tax mu ne ko mel noonu day ngoy na ca ma jàpp ga nga xam ne moo gën a dëgër ndax mbir yépp ci yàlla lay dellu léegi nag yéefir yi nag weddi yàlla di rey doomi yàlla yi di leen bund xataal loolu luy seen mbir sunu borom mu ne seen jëf bu mu la tiis yow yonent yàlla bu mu la tiis yow julit yéeféer lu mu yàgg yàgg ci man lay dellu gaa yi ana yéeféer yi fi doon bonde siècle bi passé ñoom ñépp yàlla buub na leen dugal ci biir suuf te bis dana ñëw yàlla génn leen taxawal leen ci kanamam borom boobu nag ne liñ yor ci xéewal bu mu la nax ñun yàlla ñu leen di bànneexal tuuti ñi ngeeg seen yat chi ya nekk ci géej ga fu leen neex dem ñi ngeeg seen avion ya ñi ngeeg seen jongama yu taaru ya ña nga ak musique yaag bànneex ya borom bi mu ne nu matti uhum xalila ñoo leen di bànneexal tuuti dundug yéeféer lu mu yàgg-yàgg bu doon téeméeri at pour yàlla duriwul deux heures de temps ndax yàlla nee na inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun seen junni at mooy sama benn jour loolu tax mu ne lu tuuti laa leen di bànneexal gannaaw ba buñ ñëwee ñu forcé leen mi ngi noonu ci ci ci ñun lañuy la wala boog suñu borom mu ne danaa leen xabaare lañ jëfoon buñ ñëwee ci man jàngaguñu bànneex gi danaa leen xabaare buñ ñëwee lañ jëfoon bu ñëwee ci man ndax yàlla moom mooy ki xam lépp loo xam ne dafa nekk ci dënn ay jaamam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير barakallahu fiik kon suñu borom mu ne numatti'uhum qalila dañ leen bànneexal tuuti summa nattarruhum ila azabin galiz gannaaw ba ñu forcé leen jëme leen ci mbugal mu dëgër wala in sa'altahum boo laajoon yéefér yooyu man xalaqa alsamawati wal ard waa moom ku bind asamaan yi ak suuf la yaqulunna allah dañ lay wax ne loolu ko yàllaa ko bind qul alhamdulillah neel kon koy sant yëpp ñeel ne yàlla bal aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nekk ñu di xam walaw anna ma fi l ard mu ne doonte ne nekkoon naam lillahi ñeel na yàlla maa fi samawaat lépp lu nekk ci kaw asamaan yi wala ardi ak suuf inna allaha huwa alxaniyu alxamid sa borom yàlla mooy ki woom lekki mooy ki nga xam ni cant yépp yeyoo na ko mooy kañu sant ka walaw anna ma fi l ard doonte ne dafa nekkoon li nekk ci kaw suuf min shajaratin aqlaamun ci lépp luy garab ñu defal ko ay xalima ay bindukaay wal baxru géej gi nekk ci kaw suuf yamudduhu mu dooleel ko min baadihi gannaaw moom sabaatu abhur juróom ñaari géej encore maa nafidat kalimatullah du nekk di jeex lii di kaddu yàlla ya inna allaha azizun hakim sa borom yàlla mooy ki not lépp ci kattanam mooy ki xereñi ki maa xalqukum bind gi ma leen bind yéen nit ñi wala ba'sukum ak dekkal ga ma leen di dekkal illa ka nafsin waxida dafa mel ne rek benn bakkan laa ko doon def inna allaha samiun basir ndax sa borom yàlla mooy dégg lépp mooy gis lépp mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni kon yéeféer bu mu la nax loo ko mën a gisal ci xéewal yàlla moo ko ci bëgg a bànneexal ngir ay bakkaaram gën a bari waaye allaaxira dañ leen forcé yóbbu leen ci mbugal moo xam ne mënuñu koo dékku bari gañ fay bari du tax ñu mën koo fay wala ñu wàññi ko ndax xaliis lay doon yéeféer yooyu boo leen laajee ku bind asamaan yi ak suuf ñu ne yàlla ko bind te it lay woowu yàlla nga ko bàyyi ci nit ñi ba tey ki nga xam ne moo dàq bokkaale nga koy dégg muy wax soo ko woon ci roq na ko waaw ku bind asamaan yi ak suuf danaan la yàlla la su ko defee kon kay qul alhamdulillah neel kon sant yi ñeel na yàlla subhanahu wa taala ca mbokkoo alhamdulillah mooy sant ñeel na yàlla naka la ñuy sante mooy nga gëm ne mboole mi xéewal ci yàlla kese lay jógee nga wax alhamdulillah di ko wax ba nit ñi xam ne yàlla ngay sant te rawatina sunu boroom yoonal na ko ci ñun ñu koy wax ci bus bu nekk loo xam ne nii dana nekk lu jege ay cent soixante cinq fois par jour doomu aadama bi dana toog naan alhamdulillah alhamdulillah li bi ngeen julee tàkkusan ba léegi wax ngeen ko 33 day tisbaar wax ngeen ko 33 yéen ngi koy fas yéene wax timis 33 ay xoolal loolu da nga toog di wax alhamdulillah alhamdulillah mu lay fàttali ne cant day yàlla la ñeel yaa kum mën a doon da ngeen war a ànd sant yàlla mu ngi noonu sunu borom nag mu ne waaye li ëpp ci nit ñi ñoom day xamuñu xamuñu loolu su ko defee mbokk suñu borom yàlla képp koo xam ne nii daje nga ak moom mu yëkkati dara teg sa loxo ngal la waay alhamdulillah ndax kooku jaamu yàlla la yàllaa ko may lam la jox yàllaa ko xiirtal mu jox la su ko yàlla joxul woon du la jox su ko yàlla xiirtalul woon du la jox suñ borom yàlla kon mi ngi noonu mu ne nag mboole mi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf moo ko moom waaye mooy alxani soxlawu ci dara moo tax mu wax ñu sànq ni da koo tàggat pour ñun balaa bu àddina di tukki dana rajaxi lépp def lépp cher biddiw yaag jant yaag lépp lépp lépp suuf mu dax rajax ko yépp pour wane ne soxlawu ko alxani mooy ki woomle ca it mooy ki nga xamee ne nii mooy ki yeyoo cant yépp malaaka yee ñu ngi koy sant mboolem lu dul nit ak jinne mi ngi koy sant wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi doonte ne ne doomu aadama mënuñu ko xam allahuma bu amee lenn ci nit ñaag jinne yi fetteerlu sant ñu ko it du tey yàlla moom subhanahu wa taala moom yeewee na cant yee ci ñu ngi koy sant sunu borom yàlla di wax yéeféer yi lenn ci kattanam kattanu yàlla kenn mënu koo xam waaye lenn ci kattanam mu ne man de li may amal nga xam ne lu mu bëgg danaan kun fayakun mu ne buñ dajale woon géej yi ñu multiplier ko par juróom-ñaar dolli juróom-ñaari géej dollee ko ci mboolem luy taxaw di bant ci kaw suuf ñu soppi ko ay xalima léegi di bëgg bind kaddu yàlla mënuñoo jeexal kaddu yàlla yooyee te mbokk loolu li gën a yéeme moo di ne ne gis nga ndox ci boppam tànk ndox boo tànk la ci yàlla def ci milliards yi mbindaafan soo jëloon ndox mi bëgg ko bind du sotti kon loolu yàlla wax ci géej yépp buñ bëggoon a bind la yàlla def ci ndox mënut a sotti lu ñuy bind leneen gis ngeen te loolu mbokk mooy mooy mbir bi doomu aadama bi subhanahu wa taala bu ñu la waxoon tey jii benn gramme d'oxygène bi ngay noyyi la ci nekk ci ay milliards tey sunu borom yàlla def ko ci ci ay mbindaafoon kenn xamul nu mu toll te lépp danaan ko kun fayakun jalla wa ala fel bi gën a tuuti nga xool bi mu nekkee toq mani yu ca xaw ma nu ma ko mën a tuddee ay milliards dafa xanaa nga gis ba mu nekkee ci biiru yaayam avant mu koy génnee di ko def nen lam aajowoo lépp yàlla subhanahu wa taala jox ko noonu muy tuuti tuuti bu ñëwoon a fii boo ko bëggee laal mu ne taf daal di daw man laa matt pour dund ila axiri loolu mbokk da ngay gis mooy kattanu yàlla jalla wa ala bi nga xam ne nee na géej gi mënuñoo jeexal la nga xam ne mooy ay ay kaddoom subhanahu wa taala loolu tax yonent bi alayhi salaam bokkoon na bu daan muslu mu naan a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yi mate yi ngir mu musul ma ci ay lu mu bind loolu kon mbokk da ngay gis ne kaddu yàlla yi ku ci làqu amul lenn lu koy mën a xuus ba yegg si ci yow ñu ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne kon mooy al aziz ki not lépp al hakim lu ne fa mu war a tege mu teg ko fa jàll wa ala yéefir yi di xalaat waaw ñun ba fi nit commencé am ba tey ñaata milliards ci doomu aadama ñoo seey ci kaw suuf loolu lépp ñu naan yàlla daf ñu jël di ñuy dekkal loolu naka la mën a nekkee suñ borom mu ne gis nga bind gi ma leen bind yéen ñëpp ak na ma leen di dekkale mi ngi yomb ci man ni su ma bëggoon a bind benn nit wala dekkal benn nit gaa yi dañ ne suñ caam daa jóge ci àllu Casamance ya nga xam ne musul gis lu nuroo courant ñëw Dakar mbedd mu toll rek gis poto yi taxaw mu ne waaw lii moom luy njëriñam ñu ne ko lii làmp la yoo xam ni bu guddee mooy ñiital dëkk bi mu ne bismillah xanaa di bala bala ñu koo taal fajar xar mi ngi noonu bala ñuy yëg ci lampe bu ne di ko taal kon koy fajar da daxar yaa ngi dégg waaye mbokk da lan ngay gis moo di ne ne borom réseau bi bu contagé rek mille lampe takkandoo wala dix mille lampe takkandoo loolu it da ngay gis suñu réseau yi nga xam ne noonu la demee niñ ko yàlla mayee tey nga gis réseau bi mën a jël lu mat dix millions d'abonnés yoo xam ne mën na xëy léegi rek lancer benn message daal ne bonus mu dem ci dix millions d'abonnés yépp nga gis nag loolu ñee nga Podor ñee nga Saalum ñee nga feneen dangam doomu aadama mën a nekk ci benn néeg yàlla xelal ko mu mën a def loolu loolu it tax suñu borom yàlla fu doomu aadama yi mën a tasaaroo heure bu leen joxee ordre ñoom ñépp génnaloo seeni bàmmeel ma xalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida moo tax borom buy leen mi ngi noonu nag muy as-sami'ul basir pour it bëgg ay jaamam di ko doyloo xam ne yàlla foo mën a nekk mi ngi lay gis ca loo mën a wax mi ngi lay dégg jarul kon ngay doxale kenn sa diggante ak moom wékkul ci moom toroxlul ci moom ca xam ne insha allah doy na la sëkk jalla wa ala mi ngi noonu ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
barakallahu fiik mbokk suñu borom mu ne alam tara xanaa gisoo ann allaha yuuliju leyla fi nahaar ne yàlla day mooy dugal guddi ci biir bëccëg wa yuuliju nahaara fi leyl mooy dugal bëccëg ci biir guddi wa saxara alchamsa walqamar moo tàggat jant bi tàggat weer wi kullun yajri ila ajalin musamma lépp day ma ngay dox jëm ci dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare wa anna allaha bima taamaluuna xabir te yàlla day li ngeen di jëf ku ci ñàkk kumpa la zalika bi anna allaha huwa alxaq li waral lii day mooy yàlla kese muy dëgg wa anna ma yad'uuna min dunihi albaatil te lépp lu ñuy woo ca du moom loolu ak neen la wa anna allaha huwa alaliyu alkabir te yàlla mooy aji kawe ji mooy aji ku màgg ki alam tara xanaa gisoo ba tey ann alfulka tajri fi lbahri bi nicmati llah ne lii di gaal yi day ma ngay daw ci géej ci xéewalug yàlla li yuriyaku min ayaati ngiree mu woon leen lenn ci ay kawtéefam inna fi dalik nekk na ci li lool day la ayatin li kulli sabarin shakur ay kawtéef ñeel bépp mu ñaakoon santaakoon wa ida gachiyahum mawjun ka zulal mu ne heure bu leen yiiree ay douche yu mel ne ay ker muy douche géej vague ya yu mel ne ay ker daawullah dañuy nekk di woo yàlla muxlisina lahu diin sellalal ko diinim ja falamma najjaahum ila albar amma bu leen musalee yóbbu leen ca jiiri ja fa minhum muqtasid dana ci am ñu digg doomu wa maa yajhadu bi ayatina doonte ne di weddi suñuy aaya illa kullu xattaar lu dul bépp workat kafuur weddi kotu boromam mi ngi noonu bokk suñu borom ci kattanam da ngay gis ne lii nga xam ne mooy espace bi wax nañu ko jant yeeg lu demee noonu te dana ko waxaat waaye mi ngi waxit maîtrise bi suñu borom am ci li ñuy tuddee temps temps boobu mooy lan nee na mooy jël guddi di ko dugal ci biir bëccëg ca loolu mbokk ñun duñ ko sentir lu bari ndax ñun fi ñu yàlla placé ci suuf ñu ngi placé wu ci li ñuy tuddee équateur daanaka duñu sentir duggante googu bari waaye lu mu mën a doon yaa ngi gis ñu ngi julli fajar ay 6 heures moins 20 nangam léeg-léeg daañu dem bay julli 7 heures moins 20 kon nga gis ne jamono ji ak par rapport ak 6 mois ci gannaaw guddi gi ah da ngay gis ne bëccëg bi jël na ci moom une heure de temps waaye laajal sa doom yi nekk Occident ñoom ñooy gën a sentir loolu léeg-léeg da ngay gis ne jant bi mën na nekk di leeral ba côté 10 heures 4 heures bi matin fajar jotaat na. amma boo gënee sori dem ci pôle yi am na ci ñoo xam ne daañ dem ba six mois yi guddi lay doon six mois yi bëccëg lay doon loole da ngay gis ne suñu borom yàlla moo am kattanu def loolu te da nga xamee ne suufam si axe bi mu ko placé ak wër yi muy def muy rotation yi ni mu ko calculer ba lu nekk di demee noonu te it da ngay gis ne ku nekk da nga jël sa wàll ci guddi jël sa wàll ci bëccëg mi ngi noonu ñii bu seen bëccëg gàttee ñii seen bëccëg ma ngay gudd buñ demee six mois après ñi seen guddi gàttoon seen bëccëg seen guddi gudd ila axiri loolu kattan la goo xam ne yàlla moo koy def baram boobu nag subhanahu wa taala daf ñuy wonit ne noonu muy dugale bëccëg ci guddi di dugale ba guddi ci bëccëg it noonu la amee kàttan ci changer lu mu mën a doon te yow mi nekk ci jafe-jafe xamal ne su neexee yàlla mu indil la xéewal yow mi nekk ci xéewal xamal ne su neexee yàlla mu indil la jafe-jafe su ko defee julit ba day dellu ci yàlla ndax yàlla moo am kàttan ci lépp lu ne mën na ko changer moo tax feneen ma ngi cay dolli naan yuxrijul xayya min al mayit wa yuxrijul mayita min al xay mu ngi noonu dana fekk lu dund mu génn ci lu dee fekk lu dee mu génn ci lu dund moo am kattan ci lépp jalla wa ala borom boobu it mu ne maa leen tàggatal jant bi xoolal page bi mu jàkkaar lool dafa la wax rek saxara lakum ma fi samawaat waaye tey mu détaillé la tuddal la jant bi boo ko jant boobu nga xam ne ay xéewalam kenn mënu koo lim su ngeen gis lamp yu ndaw yi li tiim benn panneau solaire mooy xëcc tàngooru jant bi daal di koy wëlbati bu guddee moom la ñuy niitoo te bokk na lu scientifique yi wax mooy adduna bi bu ñu mënoon a capter li jant bi di yónnee ci énergie benn jour de soleil doy na pour alimenter suuf yépp pendant un an mi ngi noonu buñ arrêté woon lépp luy courant ci kaw suuf ñu mën a capter benn jour ci jant bi mën na alimenter li adduna soxla yépp yépp yépp ci leeraay ak ak ak ak courant loolee mbokk dañuy gis kon suñu borom yàlla moo ñu ko defal muy xéewal gu rëy borom boobu it subhanahu wa taala ne moo tàggat weer bi mi ngi noonu qaddarnaahu manazila muy jóg tuuti lool buy feeñ di màgg di màgg ba oog ci guddi 14 bi mu ne dang mat sëkk commencé di wàññeeku di wàññeeku ba delluwaat fa mu jóge woon borom boobu subhanahu wa taala nee na yii yépp mi ngi daw jëm ci benn dikk doonte ni dig ba bu di scientifique yi mujj nañ découvrir ci seen i calcul ñoom nee nañu ne normal normalement la nga xam ne mooy jant bi yépp am na fu mu yem problème bi ñoom dañuy jàpp ne dafa war a dem a dem a dem di ñàkk énergie am ba peer doonte ne ñun jullit gëmuñu loolu xamul luñ gëm mooy jant bi daa am bakkan comme yéen ni ngeen amee bakkan am déet ñun yépp am bakkan heure bu bakkanam boobu waree jeex ci àdduna sunu borom ne isa shamsu kuwirat wa isa nujumun kadara bis dana ñëw yàlla arrêté jant bi arrêté biddiw yi loolu mooy la nga xam ne moom la suñu borom yàlla wax borom boobu nag ne kon ku nekk mi nga am dig bu mu jëm sunu borom nag mu ne xam leen ne man maa ñàkk kumpa ci li ngeen di def te mbokk ñàkk xam loolu moo tax lu bëri ci doomu aadama yi di bokkaale gis nga yéeféer yu jëkk yi boo leen masaan wax waaye yéen lu tax ngeen di bokkaale di jël ñii di ko doxale seen diggante ak seen borom ñu ne hey wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna illahi zulfa yàlla daf ñu sori loola tax ñuy ñëw ci lii pour mën a capter sunu mbir ñu mën ñoo dellu ci yàlla gis ngeen loolu muy fettaliku ki nga xam ne mooy docteur Zakir Naik bi xale yi bëri xam ci internet bi ñu ngi def benn jàmmarloo bu rëy mbooloo mu bëri fekk ko ak benn kilifa indu indu yi xam nga ñoo gën a kannosu ci kaw suuf ñu ngi noonu muy wax ak moom indi bi na ko waaw ñun gëm nañ yàlla te effectivement gëm nañ yàlla en tant que bu bind asamaan yi suuf mais nag la ñuy jaamu comme yi firi mag yi gëmul nañ yàlla bu bind asamaan yi suuf mais seen xërëm yi la ñuy jaamu mu ne ko waaw lu tax ngeen di jaamu nag yi ak yéen ak mu ne ko waaw yàlla ñun gisuñu ko gisuñu ko léegi nag ñun il faut ñu am luñ ko représenté nga xam ne lu ñuy gis di ko toroxlu parce que yàlla gisuñu ko gis ngeen docteur Zakir naa na ko waaw léegi est-ce que yow boo amoon sa benn mbokk benn wala benn waay boo xam ne moom xam ne la yow yaa ngi fii weeru dee mu yónnee la mandat yow gisoo ko déggoo ko léegi yow nga bëgg koo sant nga dem jël sa benn mbóot teg ko heure boo xëyee daa di ne Jean Jean mooy ki lay yónnee naan ko Jean maa ngi lay sant di la gërëm est-ce que Jean moom dina kontaan ci yow waa ji na yàgg xamul lu mu koy tontu waaye mbokk yàlla subhanahu wa taala gisoo ko da nga jël micro bi ne micro léegi yaay yàlla dégg nga di ko gis sa soxla su ko defee loolu mooy li doomu aadama yi jàpp ne comme yàlla gisuñu ko dafa sori il faut ñu am intermédiaire bu dox suñu digganteeg moom waaye mbokk suñu borom mu ne mooy alxabiir waxuma xam na li ngeen di wax li ngeen di jëf mais li nekk seen biir dënn sax xam na ko su su ko defee borom boobu subhanahu wa taala mu ne lii waral lii mooy yàlla rek yàllay dëgg mbokk yàlla kese mooy yàllay dëgg moo tax nga naan laa ilaha illa allah ku ñu jiñ yàlla ay nax la ay baatil la yàlla kese mooy yàllay dëgg loo woo ci du yàlla neen la te yàlla mooy al ali ay mooy ki kawee par rapport ak la nga xamee ni nii moom la ko yéefiri di melal taala allahu amma yushrikun yàlla kawe na ci loolu kawe na ci jàpp doom te dañ jàppoon ne malaaka yi doomi yàlla la kawe na ci am intermédiaire digganteem ak jaamam gannaaw ba nga xam ne mooy alxayyu mooy mooy mooy ki ki dund cay taxawee alqayyum gannaaw ba it yàlla mooy alkabir bi nga xam ne dayoom ba doomu aadama munu ko xam màgg na ca darajaam ya màgg na ca jëmmam ya looloo tax asamaan ak suuf benn ñëpp la koy def yowmal qiyaama borom boobu nag subhanahu wa taala ne xanaa gisu leen ne gaal yi mi ngi daw ci géej gi ci xéewalu yàlla mbokk gaal yooyu yow ne ah man daal ma ngay itteel ña ña ña nekk ca géej gi waaye mbokk Sénégal yow lu ëpp sa sa lekk mooy ceebu jënde ceeb bi ci gaal gi lay jaar jën yi gaal yi koy jëli am déet kon bu gaal demul musibaam di gis ngeen su ko defee kon gaal yooyu di daw ci biir géej suñu xéewal la borom bi nag ne xool naa xamu leen mi ngi daw ci xéewalu yàlla mbokk matière yi ñu defaree gaal gi yépp yàlla ko créé ndox mañ cay def muy nekk dérivé pétrole bay dawal gaal gi yàlla moo ko créé la ñu sëf ca gaal ga di ko indi yàlla moo ko def ndox mi yàllaa ko wutal benn pesanteur boo xam ne dëgërul comme suuf ne xam ngeen gaal du daw ci kaw suuf waaye woyeful comme ngelaw ne xam ngeen gaal du daw ci kaw ngelaw yàllaa ko may benn façon doole boo xam ne dëgërul lool woyeful lool ba bato bi mën caa tag waaye di ko xuus di ko xotti di dem continent ba continent li ëpp ceeb bi nga ñu lekk fii yéen Sénégal mi ngi jóge Inde wala Pakistan wala Cambodge gis ngeen loolu ngeen di dégg wala xataa Caroline ci ay États-Unis loolu yépp mi ngi jóge ci géej googu yàlla subhanahu wa taala tàggatal ñu ak gaal yooyu yàlla subhanahu wa taala tàggatu ñu ci xéewalam borom boobu subhanahu wa taala mu ne def naa ko ngir won leen lenn ci samay aaya ngeen xam ne yàlla moo am kattan ci lépp léegi nag maadaama gaal ku ko tudd da nga tudd jafe-jafe biir géej sun borom mu ne day kawteef ñeel na ci lii ñeel ñey muñ te mbokk tukki ci géej dafa bëri ay jafe-jafe te boo laajee sunu doom yi jaar ci mbënd mi naan barsaw la barzaq di dugg ci gaal yi ngiree dem Italie ña ca jot a mucc kës néew ña ca dee kenn xamul nu mu toll waaye ña ca jot a mucc mucc kës néew bu ñu lay wax jafe-jafe yi ñu daan jànkoonte léeg-léeg jéggi na dayoo moo tax suñu borom mu ne muñ ko di daan gis si lay kawteef waaye ñi jaar ci coono yooyu ba wàcc di sant ci yàlla ñoom it daan gis si ay kawteef waaye loolu lu néew la ci ay jaamam loolu lu néew la ci ay jaamam da ngi noonu gars yi théâtre nee nañ Fat Thiam dafa mos a xool góor gi Thiam na ko daal xam naa ñun daal yàlla bëgg nañu sëñ bi na ko foo ko teg mu ne ah damaa jàng benn aaya ci Luqman yàlla ne mooy dafay fonk bëgg a saba kulla saba sab sabarun shakur mooy ñi muñ tey sant fekk fat caam daa rafet lool waaye suñ caam moom ku ko xool doo ko xoolaat mu ne ko nag xam naa ne muñ gi may muñ ci sëy ak yow te yow foo ma xoolee sant sant yàlla yàlla bëgg nañ ñun jaar ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu doomu aadama bi muñ nattu yàlla bëgg na ko mi ngi noonu ceyit mi ngi noonu bépp soxna bu ci yàlla may soxla jëkkër boo bëggul it mi ngi doonte ne xëy na mën ngaa génn ci sëy ba waaye boo ko muñoo it xamal na jaamu yàlla gu rëy la borom boobu subhanahu wa taala ne buñ demee ci biir géej vague yi jóg te rek la nga dégg waa météo naan ñu ngi sant nit ñi buñ dem géej ndax ñu ngi prévoir des vagues de trois à quatre mètres léeg-léeg ñu gis ne vagues yi jóg tiim leen mel ne ay ker nëbbu leen la nga xam ne mooy jant bi ñoom ñépp ñu commencé woo yàlla sellalal ko diineem ci loo xam ne wax nañ leen ko lu bari ci tafsir yi passé te mbokk yéefiri arab yi suñ masaan dem géej mbir mi ñàng jaxasoo dañu naan yàlla yow rek lañ yaakaar yow rek lañ yaakaar yow rek lañ yaakaar ndax bokkoon na luñ daan dégg ci seeni maam mooy ku nekk biir géej di woo keneen ku dul yàlla fokk yàlla day labal sa gaal moo tax dañ naan yàlla yow rek yàlla yow rek yàlla yow rek waaye gars yi comme yàlla yow rek ci biir géej kon yàlla yow rek ci biir jiir yi kay mi ngi noonu bu doon am nañu xel moo tax suñu borom yàlla ne subhanahu wa taala dañuy woo yàlla sellal ko diineem amma bu leen yàlla musalee nag dana ca am ñu digg doomu ñoo xam ne xëy na buñ santul yàlla it feeñu lu ñu ak bokkaali di sant keneen waaye li ëpp ci ñoom dañuy gis ne ñi ngi naan ah jërëjëf hubal ñi naan jërëjëf usa bu dee waa jamono tey ñu ne ah suñ diw amul morom gis ngeen suñ diw amul morom te loolu lañ jàpp mbokk doomu aadama yi alxuraan bi doon wàcc septième siècle moom la ëpp ci nit ñi di dund ba suñ jamono tey di réalité boo xam ne kenn mënu koo dindi te wallahi mbokk mi ngi noonu sunu benn xale dafay nekk ak morom ji ñu war a jóg di war a am dëkk bu ñuy dem waa ji ne ko mais est-ce que vérifié nga essence bi moo xam nañ ne waaye suñ diw amul morom ci suñ diw yi nekk Sénégal ñu dema dema dem bi biir autoroute bi rek oto bi nag kak kak arrêté ñu xool pan ses ci digg àll bi waa ji taxaw mu xool ko mu xool ko nee na mu ma xool sama montre na ko noonu il est quatre heures du matin xam naa suñ bi yeewagul lañ xaar tuuti rek bu yeewu daal yàgg la ko bay bàyyi li ngay wax waay yaa ngi dégg mais doomu aada yi mbokk loolu lañ jàpp moo dina ne xiiwal bu ñuy am na ku ko def waaye mbokk xiiwal rek yàlla rek la amee te wallahi lu ma dund la man dañoo dama jógee ab tukki ñuy daw xaaju guddi ñu dem taxi bi ma jël am problème essence dëkk bu ñu romb bu ñu ñëwee essence yi tëj essence yi tëj essence yi tëj bañ dem ba jub ci waawoon ñu dajeeg benn camion mu ñëw wax ak borom camion bi borom camion bi daal di koy may xaw ma jaay benn bidon ci essence mu ñëw def coote bi taal rek daan naa suñ diw amul morom mën na ko jël suñ nañ sant yàlla waaw nañ sant yàlla kat bi yàllaa ko def de mu ne fuññi fuñ ñaaral ba baa ñuy teqali ko waxul waxuma mën na ko yaa xam yaa ngi dégg waaye xoolal mbokk loolu li ëpp ci nit ñi nag loolu la ñuy dund suñ borom yàlla mu ne nag moom day mi ngi noonu dañu weddi samay ay yàlla bëggul xattaar xattaar mooy warkat bi jafe-jafe yu ñëwee fàtte nga ñëpp de ne yàlla baax na yaa ngi ñaan yàlla xéewal ñoo nga war yàlla sant keneen ko dul yàlla moo tax yàlla bëggul xattaar kafuur koy weddi ay xéewalam mel ne noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير barakallahu fiik sunu boroom kon mu ne yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom waxshaw yawma ca ngeen ragal bis boo xam ne nii laa yajzi walid du mën a jëriñ aji jur an waladihi ci doomam wala mawluud kañu jurit huwa jaazin di mën a doon aji jëriñ an walidihi ca ka ko jur shay an dara inna waadallahi xaq dig digub yax yàlla bi dëgg la fala taxurannakum alxayaatu dunia bu mu leen wor dundub adduna gi wala yaxurannakum billahi alxaruur bu mu leen wor ci yàlla waraa kot ba waraa kot ba mu muy seytaan inna allaha indahu ilmu saa yàlla day nekk na ca moom xam-xamu kañ li bis penc di taxaw wa yunazzilu lxays moom mooy wàcceb taw wa yaalamu ma fi l arxam moo xam la nekk ca biir biiru jigéen ya wa ma tadri nafsu maza taksibu gadan amul benn bakkan bu xam lu muy fàggu suba wa ma tadri nafsun benn bakkan it xamul bi ay ardin tamut ci fan ci suuf lay deeyee inna allaha alimun xabir sa borom yàlla nag mooy aji xam aji ñàkku kumpa ci lépp mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi ñuy woo ci aaya bi tëj téere saar bu màgge bi nga xam ne mooy saaru xikma suñu borom ne ay yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom at taqwa mooy ragal mbugalam yaakaar xéewalam noo koy defee mooy da ngay def ay ndigalam bàyyi ay tereem beneen biit mooy wax sow mooy ragal leen te mooy tiitaange goo xam ne mi ngi sa kanam nga xam ne mooy bis boo xam ne bu ñàngalay doon nga xam ne buñ fa demee bàyyi day du mën a jëriñ ci doom dara yaay du mën a jëriñ ci doom dara ñoom ñëpp waalit lañu waaye ka ñu jur na doon ca baayam la wala ca yaayam la du mën a jëriñ ci moom dara wallahi ba ngi gis benn témoignage bu mbokk yi di yónnee ci benn waay di wax événement muna yi yi amoon daaw yàlla nañu yàlla musul muy amaat muy nettali mu ne moom événement yi da ko fekk ci biir nee na bu ñu xoolee tollu nañ jamono ñu bari ñi ko wër yaramu neen lañ def mu ne tiitaange bi nga xam ne moom lañ nekke woon moom yëg ne na moom ci ay niiw lay jaar mi ngi jaar ci ay niiw ay góor ak jigéen mi ngi yegg benn place mënatula bouger am na benn soxna bu nekk ci suufam mi ngi matt tànk bi pour di ko xamal ne moom deewul mais nee na man mënuma sëgg mënuma bouger noonu laa baj bajee ba romb nee na affaire bi duré na une heure de temps nee na nag ba mu demee ba mucc ba taxaw ca lay doogu dégg nag aaye bi yàlla di wax ne yoomal qiyaama ndekete kenn du tal kenn waaw moo gaa yi fitna ba am fii ci àdduna rek ba waaw da cay boole mu ne waat ne ne bu doon yaayam la sax mënul ko dara loolu la wax mu ne bu doon wóor na ma ne sama yaay la dara la ci mënul parce que lii am rek mooy su ma jéemoon a sëgg dee ànd ak moom ca mu ne léegi nag bi mu demee ba ba toog xalaata après lay xalaat ne ñu bëri seen yaram yaramu neen lañ defoon waaye jamono boobu kenn xalaatul yaramu neen ca noonu la ko yaay Aïcha laaje sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nit ñi dañuy dekki seen bàmmeel yaramu neen mu ne ko ah góor ak jigéen mu ne ko hey Aïcha mbir ma gën naa ñàng ngay xalaat naan kii góor la ak kii jigéen la gis ngeen kon bokk àllaaxiraa ngi noonu nekk mbir bu ñàng suñu borom neen nañ ko ragal nañ ko ragal ku la bëgg alag rek mooy ku ci bëgg a dalal sa xel te ku bàyyi rajo ku bàyyiwul rajo ak télévision Sénégal yi wallahi doo ragal alaxira ndax pour ñoom mag ñi réglé nañ tout li ñu dese rek dee tàbbi aljanna waaye dañ lay nax de alaxira lu jara ragal la nuñ koy ragalee al imaanu saxiix wal amalu saalix gëmal sa borom bu ko bokkaale loo xam ci ay ndigalam defal loo xam ci ay terem bàyyeel booleeg di ñaan bu dégg bëccëg nii la ñuy waajale alaxira ragalin bis boobu mi ngi ñëw bàyyi du mënal borom dara masamba mee nga yaakaar am na baay suñu borom nee na du faale baayam waaye nga bëgg nag faalul baayam faalul yaam jële faale yow yawma yafirru almar'u min axihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani suñu borom nee na nit ki dana wan gannaaw ndeyam baayam jëkkëram ak doomam yëpp nga bëgg yow mu faale la loolu mbokk dañuy nax su ko defee alaxira mooy yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah kenn du mënal kenn dara mbir yëpp ci yàlla lay dellu la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidi borom boobu nag mu ne diggu yàlla bi dëgg la bokk àllaaxira sikk amu ci dëgg la kon fexe leen bu leen adduna nax adduna def leen ko moyen bu ngeen jaamu yàlla moyen bu leen dimbali ci jaamu yàlla waaye bu mu leen itteel ci tere te dox seen diggante ak jaamu yàlla ku ko def perte nga ndax bis dana mësa ñëw mu wor la mi ngi noonu nga dee adduna continue dox sa kër yaag sa wote ñeneen di ko bànneexoo yow ñu jël la suul ci biir suuf su ko defee kon mi ngi noonu mun a it waraa kot bi di iblis bu mu leen nax iblis dina la ñàkk gëmloo àllaaxira comme li ëpp ci doomu aadama bi tey gëmuñu ko wala boo ko gëmee mu ne la garaawul sa njiw rek la ne lépp yow lu la neex defal boo demee ëllëg dana ko réglé gis ngeen loolu waraa kay seytaane la laa yagurannakum billahi alxaruur borom boobu nag dañuy xamal ne kañ la bis penc di ñëw xam-xamam la boo xam ne xamalu ko malaaka xamalu ko nit xamalu ko jinne kenn xamul kañ la bis penc di ñëw donte ne sikk amu ci borom boobu yi dañuy won ne li tax ñuy dund ci kaw suuf muy am ndox moo koy wàcce kenn mënul xam kañ la ndox di ñëw météo buñ demee ba gis ay développement ci ay niir ak ay ngelaw yu ñëw ñu def seen calcul prévoir daa jëne day y a des prévisions ni Dakar tey mën na taw loolee alhamdulilah léeg-léeg mu nekk dëgg léeg-léeg prévision météo faussé mi nga noonu moo tax ñi ci gëm yàlla ñoom docteur Ousmane Ndiaye ak ñëpp yàlla na yàlla sàmm leen da ngay gis bu ñu wax dañ naan insha allah mi nga noonu ndax ab taw yàlla doo nga koy wàccee bu doon tene gars yi am nañ pexe ci taw bi moo gars yi gisul France burki dém boo Ndiaye coono bi ñoom ci tawa ah mu rey fa ay nit ñu dul jeex yàqal leen kenn xamul ci ñaata milliards bu doon am nañ ci pexe kon du wàcc waaye yàlla koy wàcc mënuñu ci dara fa ko yàlla xañit kenn mënu ko wàcc fa ko yàlla xañ kenn mënu ko wàcc yunazzilul ghays gannaaw ba mu ne moo xam ni nekk ci biir yi ay doomu aadama bi ñu ëmb yow sax xale bu ndaw bi sax bu demee ba yaay ji ëmbul yenn kii dana xam ne dafa ëmb waaye dem nañ ba yàlla ma ñu échographie ñu xam ne kii góor la ëmb wala jigéen waaye ndax ëmb bi dana doon ëmb bu mat ndax dana juddu ndax dana baax naka lay jëfe ci kaw suuf loole kenn xamu ko dul yàlla mu ne huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ba muy sos sunu bay aadama la xamoon ñaata la war a jur ci milliards ci ay doom la xam doom yooyu ña cay baax ak ña cay bon yow bi nga nekkee si biiru yaay bi nga amee quatre mois la yàlla yónni malaaka mu xamal ko kañ ngay juddu ñaata at ngay am luy nekk sa wërsëg looy jëfe lépp mu bind ko ci téere kon kooku yàlla rek moo ko xam ya'lamu ma fil arham amma doomu aadama moom waxumaa xam waaye li muy def liggéey suba sax xamu ko wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan te loolu yàlla da ko wax rek pour ñëpp dégg mooy kenn xamul looy def suba waaye mbokk fii ak une heure de temps sax kenn xamul looy def mi ngi noonu doomu aadama joxe ne léegi rendez-vous ah balaa rendez-vous bi ñëw loolee yàlla subhanahu wa taala ñëwee ci mbiram mag ñi nekk ci jàkk yépp xam nañ ma daaro caam bokk na ci ñu sos jàkka ji dafa am benn góor goo xam ne nii góor gi ñang mi ngi noonu yéen xale yi xam baabu caam moo jur soxna baabu caam ma daaro dafa ñëw këram ñu ne ko dafa génn mu ne neelal ko bu ñuy xaar ma maa ngi ñëw dem ci tali bi rek oto tël ko yaa ngi dégg subhanallah gis ngeen lii lépp ci dogal yàlla la bokk mi ngi noonu oto tël ko léegi yàlla dogal ma daaro faatu biñ demee sétéo maag moom ñoo fa daje moo góor googu ñëw biñ ñëwee ñu koy seet ñu yóbbu ñu ci tiroir yi biñ ko génnee mu tim ko naan ko ma daal waxam woon li de waxam woon li de da nga doon maa ngi dem ci ñëw boole kooku jooy yu métti mais gis nga mbokk julit maa ngi dem ci ñëw lu ne xaj na ci kon waxumaa fii ak suba tey moom moomu fekki la ko yàlla na yàlla yërëm leen mi ngi noonu ñu yàlla yërëm yu bis bu ñu leen fekkee kon mbokk noonu la demee su ko defee kon julit lu muy def mooy lépp lu muy def danaan insha allah waaye mbokk insha allah tey riir na ci làmmiñu xale yu bari mooy bu soobee sëñ diw rek barke sëñ diw bu soobee sëñ diw xale yi xamatuñu yàlla xamatuñu yeneen ci yàlla loolee mbokk da ngeen ci bàyyi xel bu baax ku nekk sa doom ci kër gi nga dégg mu tudd keneen ku dul yàlla dina ko déet subhanallah ah subhanallah wallahi benn ci jigéenu jàkka ji yàlla na yàlla dolli ko wér nekk na ci kër goroom magam bu mbokkoon dabay ma fa sëy mu nekk fa léegi xale yi ku fakka solu ne cheikh nangam ci kenn ci ñuy dund ci Sénégal ki mu wax moom mi ngi dund ba léegi sax cheikh diw mu ne leen da ngeen wax subhanallah jëkkër ji ne ko bàyyil sama doom yi laa wax bàyyi leen ñu gëm li ñu gëm mais bi soxna si continuer ci loolu bis la takk ay bagage am yëpp delloo si ko sa kër ne man ku gëmut li ma gëm na na na du ma dëkk ak moom waaye mbokk kii naan la waxal subhanallah bu déggee mu waat mënu ko déet booy waat da nga naan billahi wallahi mu ne lu tax muy tere njabootam ñuy woo keneen ku dul yàlla di waat ci keneen ku dul yàlla xoolal mbokk fi ñu toll fii ca jullit nga war a gëm ne amul lenn loo mën a def loo mën a jëf lu dul ne yàlla subhanahu wa taala moo ci ànd insha allah xatta yonente yàlla boobu ci xanaa su sëñ boobu lu mu baax baax warul gën a mën a baax yonente yàlla bi yonente yàlla boobu la yàlla waxoon ne wala taqulanna li cheyin inni failun zalika ghadan illa an yasha allah bul waxati mukk ne danaa def lii suba lu dul nga ni insha allah loolee kon mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax su ko defee borom boobu subhanahu wa taala walbati ko it ne kenn xamul benn suuf booy deeyee kenn xamul fooy deeyee bokk doomu aadama yi wallahi ak ñu bëri ñu dee autoroute ku leen ko waxoon dana leen jaaxal ak ñu bëri ñu dee ci place ku leen ko waxoon dana leen jaaxal waaye xam nga lu ci gën a yéemoo waay ah suñ njaay day nekk fii bu feebaree ñu ne ah njaboot gi dajale lu ñu amoon lépp lépp lépp ne nañ ko yóbbu Amérique pour faju ko ndekete yoote suufam lay jëli am déet ñu dajale la ñu amoon yépp mu dem Amérique dee fekk sëñ njaay ci dundam mosul xalaat ne danaa teg sama tànk Amérique mais biñ demee ba dee des quelques jours ca Amérique la war a dee ji fokk mu dem Amérique dee ji foofu boo demee ci téere israiliyaat yi xam nga yaa ngi dégg ñu naan Idris alayhi salaam sunu borom mu ne rafa'nahu makanan aliya bokk ñu lu ñuy wax mooy Idris daf ne malakul dafa ne benn dafa amoon benn xaritu malaaka mu ne ko yéen malaaka yi xamante ngeen malakal mawtu bu ñëwee di ma jël si rek këf mu may yóbbu ma kaw asamaan mu ne ko d'accord léegi malaaka bi ne ko ah yow sa sa délai bi jot na de daal di jël Idris yóbbu ko ba asamaanu ñeenteel biñ ñëwee fekk malakul mawti taxaw naan subhanallah subhanallah idris ne ko lu xew mu ne man kat yaa ngi nekk suuf yàlla ne ma demal asmaanu ñeenteel jël ruuxu idris ma jaaxle ñëw toog fi du fekk ma fi yaa ngi dégg mi ngi dox donc gis ngeen am na ñoo xam ne malakul mawti ma nga toog autoroute di leen xaar ñee ma nga nekk biir géej di leen xaar ñee ma nga nekk fagor di leen xaar mi ngi noonu sama benn xarit bu daan ñëw fii lu bëri inspecteur professeur Dame Gueye ndeysaan lu bëri daan jullee fii juma fii la ko daan jullee ma nga am benn ku muy dégg urusodi xamul luy urusodi dem ndeysaan di ko seeti dem ba foofu crise asthmatique daañul ko fa foofu la deeyee ji xoolal mbokk mbiri yàlla noonu la xoolal ki nga xam ne mooy Latif Gueye yàlla na yàlla jégal ko yëram ko juddoo Dakar yaroo Dakar fan la ko yàlla moomee ci àll bu kenn xamul sore sore Dakar waaw boori Tamba kon mbokk yàlla mi ngi noonu kenn xamul ci sa bopp dara waxumaa di xamal keneen dara loolu tax ki gën a texee di ci jaame yàlla yi mooy ki jël moroomu jaamam dénk ko boppam nga la waay nañ dénk suñu bopp suñu boroom nañ yaakaar suñu boroom sukkandik suñu boroom yal na yàlla taxawuñu àdduna ak alaxira yal na yàlla defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad sunu yonent alayhi salaatu wasalaam day wax ni li nga xam ne mooy maradatul jaan mooy seytaane yi fittirlu yi daan leen ci ci weeru koor ndax loolu nuñ koy déggee ñi nga xam ni ay siyaatin da leen di dikkal ñuy daanu wala di am ay jaxas mbokku siyaatina yooyu lañu ci mën a déggee mooy doomu aadama yi heure boo xamee ne nii dañoo woor suñu borom yàlla dana naxasal seytaane yi ci ñu bañ leen puus di leen yóbbu ci loo xamee ne nii suñu borom yàlla da ko xaraamal loolu am na lenn ci ay borom xam-xam lañ koy firi mooy fa ñu daan jaar ci dugg sa biir yaram di daw di la jaxase maadaama da nga woor loolee di tëj ci ñoom bunti seytaane yi doonte ne ne day aju ca ña woor amma doomu aadama ya nga xamee ne nii nekkuñu ca koor googe du tee ba tey ñi ngi leen di fitnaal la chaque daal mooy suñu borom yàlla jullit yi nga xam ne dañuy woor yàlla dana leen dimbali ba fit seytaane yi fittirlu pour di leen yóbbu ca bakkaar yu mag ya yooyu moom dana leen ko tënkal amma nag la nga xam ne mooy jaxas-jaxas yi seytaane yi def nga xam ne jotewul ak diine dara ay feebar la loolee moom day yokk seeni daraja ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn jigéen ñëw na ci moom ne ko man seytaane def may dikkal léegi dama bëgg nga ñaan yàlla teqale ma ak moom mu ne ko moo ne booy muñee day àjjana mooy sa wàccuwaay mu ne ko waaw mais su ma dikkalee damay jël samay sër di ko sànni kon ñaanal ma bu bañ a sànni samay sër yonent bi ñaanal ko loolu daana am ay crise mais daawul sànni sërëm soxna su ñuul la woon dañ daan wax kii àjjana la jëm su ko defee kon day am différence ci seytaane yi lay xiirtal ci lu bon ak seytaane yi lay dikkal di la jaxasal ak di lay indil ay perturbation yooyu day yokk sa daraja te yu jëkk yi dañuy yàq sa diine wallahu subhanahu wa taala alam am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne amul kenn ci doomu aadama yi lu dul yàlla boole na ko àndandoom ci jinne yi ci seytaane yi àndandoom ci malaaka yi ñu ne ko même yow mu ne même man am na àndandoom seytaan waaye yàlla daf ma ci musal fa aslama am ñu jàpp ne islaama mooy man dama mucc ci moom doonte ne ne li gën a siiw li nit ñi jàpp mooy aslama moom ci boppam mooy que jébbalul ba du def du xalaat loo yonent bi dara lu bon almuhim mooy seytaane ba amul benn effet ci yonent yàlla bi amma keneen ku dul yonent yàlla bi seytaane mi nga ànd ak yow ànd goo xam ni soo fàttalikoo yàlla mu laqatu soo sàgganee mu ñëw indi xalaat yu bon looloo tax heure booy jàng alquran aouzu billahi min ashaitan rajim heure booy julli aouzu billahi min ashaitan rajim min sharri alwaswas xannaas day laqu di feeñ laqu di feeñ mais du teqalikoo ak yow mukko mi ngi noonu boo ko la góor ga Touré doon wax yàlla na ko yàlla jégal ansañ caam seytaane yi ndax dana dindi ngembam mu ne déedéet moom kay foo ko yuroo dóor ci suuf mu taggaat ngem bi di ñëwaat mi ngi noonu ba gaa yi nettali sax dañ naan imaamu ahmad rahimahullah nekkoon imaamu ahlu sunna bi muy faatu dañoo toog dégg ko mu naan laa baad laa baad ñu ne déet xanaa après xanaa après gannaaw bu mu fiixaat ñu ne ko imaam dañu dégg naan xanaa xanaa après mu ne waaw seytaan ne daf maa feeñu naan ma ahmed xam nga mucc rëcc nga ma rek wallaay ma am lu ma naq rëcc nga ma rek ma ne ko de rëcc gu ma la de fii déewu gu ma rëcc gu ma la gis ngeen ala kulli xaal mbokk kon seytaane du teqli koog yow problème bi mooy heure boo xamee ne yaa ngi jaamu yàlla di tudd yàlla day mujj nekk luy yàpp yàpp rek mais du la am ci yow benn jeexital fa inna sunu borom mu ne fa innahu laysa lahu sultaanun ala allazina amanu ala rabbihim yatawakkaluun amul benn pexe ci ñi gëm ci wékku ci yàlla loolu moom na ci sa xel dal wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam amin defal ñu ko ñun ñëpp
léegi yow yàlla natoo la benn métier boo xam ne yow di yow nga dem ci àll bi àll bi mën koo exercer foofu comme àll bi ci biir bi demewu ko noonu te yow da ngay sentir ne loo demee foofu dox te iman day wàcc léegi laay jiw boobu la la bëggoon ñu ci laay jiw.
ala kulli xaal waaw léegi moom sama laay jiw la ci yeneen yi rek ci yeneen yi dund parce que man damaa wax ni pour déclencher sa contrôle mooy ki nga xam ne yàlla dafa gën a léegi ci ma yow man dama lay ñaan yow nga gën a taxaw alquran di ko jàng bañ bañ koo sàggane benn yoon te ñeneen ñi nga xam ne gisuñu sunna nga nga nga nga jàppale leen fexe leen jàppale ñu ñu gis sunna parce que daa am ñu ñu dugg seen diggante waaw jazakallahu xayran waaw jazakallahu xayran ala kulli xaal ci li ñu ciy wax rek mooy doomu aadama bi yow soo amee sa ngëm am sa yaqiin du tey nga mën a dem fu la neex nga liggéey fa problème bi rek mooy na nga xam sa diine na nga ci am yaqiin loolu du tee nga dem fuñ ko xamewul wala fuñ ko dundewul ndax mën na am dem boobu nga fay dem sax nga gindi fa ay nit ñu bari ca loolu ku ne gis nañ ko bari na fi ay borom xam-xam ñu tëj ci kaso bi avant ñu fay génne li tuub seen loxo kenn xamul na mu toll am na ñu nekk ci ay dëkk bañ fay dem kenn xamu fa woon diine kenn xamu fu woon sunna mais seen góorgóorlu yàlla dogal sunna tasaaroo léegi mel ne am na góor gu ñuy wax Mahmoud Ba nga laay bu leen ko fàtte mooy ki indi sunna presque Sénégal lu ci bari ay bari 45 la nga xam ne diine yàgg na fi naam te nangu nañu suñu diine maam yi tamit waaye la nga xam ne mooy delloo nit ñi ci kitaabullah ak ci sunna yi dañ ci bàyyi salaam ba ñu doxalee kenn sa digganteeg yàlla moo ko fi gën a dëkk tasaare mu ne kuntu bazan nee na bi mu ñëw dafa nekk genre comme aigle yooyu la nekkoon nee na garab gu ma dem ñu làq ma garab gu ma dem ñu dàq mi effectivement boo xoolee jaar jaaram coono bu ne teg nañ ko ko Sénégal mu ne waaye jeex na ñu ne picc ma nen ya nen na nen ya tasaaroo nañu léegi foo dem sunnaa ngi tasaaroo yaa ngi dégg su ko defee kon yow mi xam sunna dëgër ci bul ragal a dem fenn ñaanal yàlla mën nam fa ngay dem nga xamal ko ñoo xam ne xamuñu ko woon mbokk mi ngi noonu ah ah waaw naam mi ngi noonu naam naam mi ngi noonu moo tax sax léegi la nga gis ay duwaat yoo xam ne nii dañ leen di jël di leen yóbbu ci ay dëkk di leen jox ay salaire ngi leen ñu waar leen Cap Vert gi xam ngeen ne ñi gën a sànq fa la ñu nekk imam ki moo ki loo Diop nu mu tudd Demba Diop imam Demba Diop nekkoon na fa ngiree di waaraatee ala kulli xaal julit loolu la yal na yàlla dëgëral suñu diini boole ñu ñuy woote ci aw yoonam mu rafetal suñu mucc te defal ñu àjjana suñu ndaje bu mujj wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad